chers internautes Dak Medina, salam yéen ñi nga xamni ne ñuy suivre un peu partout dans le monde entier euh, ñi ngi fi nga xamni moy mooy École Médine am mbégte ak contentement ñëw dinañ fi tataanal li nga xamni mo moo fi jot a ci élection yi nga xamni mu élection présidentielle 2024. amal tay un grand plaisir ñëw tay ci élection présidentielle bi ñëw defal leen benn analyse. est-ce que mën nga wax euh, Sénégal euh, ñaata personne ñoo bind ci li nga xam ne mooy liste électorale bi nga xam ne 2024 bi l'élection présidentielle est la rencontre d'un homme avec son peuple. comme ni ko ni ko nit ñi di waxee rek soo xoolee élection bi ñëpp la soxal tamit te yàgg nañ ko wax élection boo xam pré campagne bi ça a duré depuis cinq ans depuis l'élection du du deuxième mandat de président Macky Sall euh, moom la. soo xoolee ren yaa moo nit ñi dañ ci takku ci cette élection y' a sept sept millions d' Il y' a six mille quatre cent quarante euh, euh, de bureaux de vote dont 807 à l'étranger il y a 17 candidats Nous lañ après le désistement de deux candidats ils nga le camp li y a près de 2400 euh, observateurs ce qui marque ce qui moom mooy wane ni l'importance du Sénégal dans la géostratégie mondiale 2400 électeurs parce que chaque fois boo xam ne Sénégal depuis presque deux ans trois ans ñu ngi koy dégg télé yi ñu ngi koy waxtaanee élection bi moo euh, élection bi dafa am dafa am solo. parce que bés bi dañ ko xaaroon lu yàgg kon nag bu ñu yàlla mayee ñu fekkee ko dañuy sant yàlla waaw. nga am foo bokk naka nga gisee déroulement vote bi bi nga duggee ba tey voté. waaw ni ma ko gisee euh, wax dëgg yàlla calme na daal. waaw ñi ngi ñaan yàlla mu continuer nii fii ba keroog ñu joxe résultat yi incha allah. Mhm. en tant que porteur de voix ngay voix wu Médina ban message ngay lancé. Euh, message bi may lancé waa Médina bu leen kenn woo ci violence. violence moom bu leen ci kenn woo na nañu vote calmement euh, ki yàlla jox ndam li ñu xam ne moom la yàlla jox ndam li ñun ñëpp ñu ànd ci te nangu ko. donc pour le moment on a on a on a quelques lenteurs dans certains bureaux de vote dû au par exemple peut-être y des présidents qui ne sont pas assez expérimentés mais dans l'ensemble on peut dire que le vote se déroule bien parce que ce sont des représentants franchement je peux dire que signaler guñu un problème un problème ne à part le retard parce qu'il y a aussi un retard il faut le signaler donc depuis ce matin on a on on comme nous ngeen rush au niveau des bureaux de vote une satisfaction pour nous, parce que que nous avons fait au Sénégalais pour que nous accomplissions accomplir devoir citoyen pour que ñu puissions définir ensemble une nouvelle trajectoire pour le Sénégal. ba tey ñoo ngi ci déroulement du vote bi fii ci centre Mour Diop ma taxaw ak benn représentant mandataire parti Euh, bi tur bi nan la. Euh, ngi je suis le mandataire euh, du parti Tekki de Mamadou Lamine Diallo. Euh, fi mu toll nii nan nga gisee déroulement vote bi. pour le moment ça se passe bien donc les populations génn nañ en masse muy xale muy mag muy ndaw donc euh, ça se passe très bien donc la sécurité aussi est au rendez-vous ça aussi il faut le reconnaître nit yaa ngi voté tranquillement ndax ku ne jaaxle woon na ku ne kon bu yàlla defee lii am ci jàmm ñu gis mu tàmbali ci jàmm ñu ñaan yàlla mu jeex ci jàmm et que le maire gagne ñu taamu ci nag sunu président muy président Khalifa Sall ndax mom dañu am yaakaar ci réew mi lool ci moom ci expérience am ci durée de parcours am ak ci yaram loolu nag defe naa ne ñun waa Médina kenn duñu ko wax ndax am na fu bari fu ñu jaar ak Khalifa Sall ñun waa Médina kon yaakaar naa ne lii ñu fi gis dalagum na xel di ñaan yàlla doomu Médina yëpp muy mag muy ndaw muy góor ñu bàyyi seen xel ci président xalifa Sall ndax ku xëy jox la ndekki jox la añ bu la ne dinaa la jox reer sa xel dina dal. law kon chiffre yaa ngoog daal. ok merci Moussa ñi ngi fi nga xam ne mooy centre Mour Diop euh, également mu nekk centre bi nga xam ne moo gën a mag au niveau de la locale euh, commune Medina est-ce que mën nañu xam centre centre bi ñaata bureau de vote moo fi nekk. centre bi comme ni nga koy waxee rek en ah, centre bu rëy la ça polarise 24 euh, bureau de vote mënuñu am les les candidats parce que tam ku ci nekk yaa ngi voté sa gox bi nga nekk mais ñun particulièrement les leaders politiques et des et colorations et des différents coloration politique yëpp dinañ leen jëlal ku ci mel ni Ngouda Diène léegi dinañ ko jël parce que mi ngi ñuy taxaw di xaar dinañ jël la réaction du maire après son vote la réaction des responsables de Beno Bokk après le vote et la réaction également de ku ci coalition de Faye ku ci mel ni également ak ak Ousseynou Ly ñu ngi xaar avec des autres représentants de parti dans la localité de la Médina